jamono ji gouvernement bu Sénégal dañuy tappale te loolee war nañu ko bàyyee wàllum tricherie sa la ñuy yëngoo secteur ba ma ngi dafa daal gëllu goosee tâtonnement bi nga xam ne moo am jamono ji loolee war nañu ko lijjante maanaam làmbatu jamono ji moom la gouvernement bu Sénégal yi defa la na weesuwul ceeb bi nga xam ne jamono ji seer na ba jéggi dayoo ak suukar si nga xam ne seer na ba jéggi dayoo ak diwlin ji nga xam ne seer na ba jéggi sañ-sañ ak ba la jëm te bu fa amee kër du baax ndax ñii nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ni ñu yore réew mi maanaam dara baaxu ci te loolu nag askanu Sénégal ñoom seen bopp war nañu ko xam yéene kaay gi de xëy duñu xibaar naan ñu am na lu toll ci fukk ak juróom-ñaara cay député yoo xam ne bokk ci majorité bi ak ci opposition bi ñoom nag daan nañuy saisir conseil constitutionnel ndax fan yi nga xam ne moo la ñu génn dafa am ab loi boo xam ne dañu ko voté assemblée nationale ngir nag ñu wàññi na conseil constitutionnel démocratie te loolu nag maanaam tegul ci yoon yéenekaay gi di Sud Quotidien ñu koy fekk fa Seydina Issa Lay Samba maire bu Yoff muy weddi ndax fan yi nga xam ne moom la ñu génn dafa demoon ca pale ba am ñu mu àndala moom Seydina Issa Lay coow li nag bi mu na kurru bëri ñu ne Seydina Macky Sall recevoir na ko démb la doon weddi nee na gisantewul ak Macky Sall waaye dem na sa palais ba nee na Mahmoud Saleh ak Mor Ngom la gisantel sa palais ba lan la doon wutee nee na lam fa doon wutee dafa am ab comité boo xam ne ñoom dañoo dëkk Yoff jàmmalaay bëgg nag lu jëm ci wàllum nag littoral bi bañ ñu daal di koy nag sàkkal pexe loolee moo taxoon askanu yoof sant ko nag mu gisante ak état ngir nag loole ñu mën ko lijjante nee na loole la fuuti woon nag waaye nag bàyyiwul yeewi benn yoona te nag jéem ta dem sax nag fekki Macky Sall ndax yëre wuñ ko ci noonu naam nag jamono la joo xam ne ñu bari ñoo ngi transhumé waaye nee na moom bokkul ci ñi transhumé ndax na dafa judd ci famille boo xam ne am na yenn yoo xam ne jomb na ko defa moom Seydina Némé Issa Laye nee na ba muy dem tàggu na Khalifa Sall tàggu na Barthélémy Dias explique leen mbir mi ni mu demee yéen a kaay gi di Vox Populi moom Seydina nee na amul lenn loo xam ne làq-làqal na ko ca ba mi dem pale nee na bëccëgu ndara kam la dem wurul benn yoon yéen kaay gi di bés bi ñu fekk fa Pape Djibril Fall nee na day dem ci élection législative yi moom journaliste bi journal bi nee na tamit ñi nga xam ne ñooy nappkat yi nee ma pêcheurs yi ak mareyeurs yi ñoom tim dañuy dem ci élection législative yi ndax nag ñoom dañoo gis na seeni jafe-jafe kenn saafarawu ko kenn waxulu leen ñoom nappkat yi nee nañu sax ci mouvement ànd suqali napp gi ci la ñuy demee ci élection législative yi ndax ñoom yi dañoo gis na bëri nañu jafe-jafe yoo xam ne ñoom ñoo koy dund te kenn kaasulu déroulé na loolee moo tax ñoom ñu gis ne système bii nga xam ne moom la ñu yore lu jëm ci wàllum napp gi ci Sénégal dara baaxu ci te nag ngir nag mbir mi baax ñoom il faut ñu dugal ci seen loxo pêcheurs yi ak mareyeurs yi jamono ji ñoom waaj nañu nag li nga xam ne mooy législatif yi comme ni ko Pape Djibril Fall journaliste bi moom ci mu waajee yéene kaay gi délibération xëy ñu xibaar naan ñu Omar Sow mi nga xam ne mooy PDG Odis Group International te nag jamono ji ñu daal di koy teg loxo ci lu jëm ci ay njuuj njaaca yoo xam ne toll na si ñetti milliards complice am bii na des na maintenir moom Omar Sow Odis groupe international ni ki démb am na nag ab retour de parquet dañu ko tuumaal ne dafa falsifié am ñu bari ñoo xam ne encaissé na seen xaalis wax leen na leen dinaa leen wutal ay terrain ci xolu Ndakaaru journal bi nee na maître Mamadou Ndiaye mi nga xam ne mooy maire bu Thiaroye te nag bokk ci Yewwi Askan Wi moom tudd nañu ko ci mbir mi waaye nag waa Libération bi ñu laajee nag maître Mamadou Ndiaye na ko coow lii ñuy dégg coowul ñetti milliards te nag ñu teg si loxo Omar Sow yow tudd nañ la si lan nga ciy wax moom maître nee na mbir mi daal du ci wax baax yéene kaay gi de laas xëy dañu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Touba ñoom nag yàgg nañoo am ay jafe ci lu jëm ci wàllum inondation loolee nag Macky Sall bëgg na ko saafara moo tax ni ki démb waa ñoo ngi woon Touba lu toll si ñaar fukk ñetti milliards la Macky Sall génnee ngir nag liggéeyu Touba yi liggéey bi dina toll ci fukki weer ak juróom-ñett yéene gi nee na lu jëm ci wàllum ñàkku carburant gi askan xam ne ñoo yeewoo Kolda ñoom nag sonn nañ ba maara détaal yi carburant amul Kolda waaye tamit carburant amul fi nga xam ne mooy Ziguinchor moo tax askan wa fa yeewoo dañoo mer ba maara détaal yi yéene kaay gi di direct news nee na nag du Kolda rek ak Ziguinchor ndax nag gox bii nga xam ne mooy Sédhiou foofee tamit amuñu carburant yéene kaay gi de la sa ministre Sophie Gladima mi ñu dénk wàllum pétrole bi moom nag nee na jamono ji mbir mi lijjanti ko yéene kaay gi sunu làmb xëy ñu xibaar naan ñu combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Modou Lo ak Ama Baldé est-ce que combat boobu dina am jamono ji nag ñu bare bare defatuñu ci seen yaakaar Modou nag bi ñu ko laajee ci combat bi ndax dafa blessé woon nee na jamono ji